auzu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa qawla wala quwata illa billahi alil azim fa sayakfikahum allahu wa huwa samiul alim rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta xayrul munzilin wa inni auzuha bika wa zurriyataha min asaytaani rajimi rabbi auzu bika min hamazati sayatin wa auzu bika rabbi an yahduruni mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen ñi nga xam ni yéenay safoo suñu seen bi Diwane TV ñu ngi leen di nuyu baax te leen jaajëfal de ñaan suñu borom barkeelal leen te barkeelal nu te defar seen i mbir te suñu mbir di ni ngeen wéy di abonné tey partager vidéo yi te di ko zem di jaajëfal borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ñu ëpp xam-xam fuuf tey wétali ko seen bi te seen baax rek ak seen goyef tax ñu ngi leen di jégg baax ci gàtt gi xam-xam lool ak ñàkk gi xam ndeysaan ak ñàkk xam gi te it di leen ñaan bu baax lépp loo xamante ne njum njumte la yal ngeen ñu ko jégal ci barkab alxuraan gannaaw loolu ñu ko baaxoo def mbokk yi saa su nekk yéen indil njariñu bàyyi ko ci alxuraanul karim te ñu indi leen sekkara boo xamante ne bii xuwatu sàkkar maanaam góor gu néew kartan ci wàllum sëy góor goo xam ni day gaaw a yëg boppam ci wàllum sëy xam ne day gaaw a yegg lool te gis ne lu bari lool ci jamono ji dama xamul li ni lekk la dama xamul wér gi moo bareetul waaye la mën a xew moom yi ni jëfandikoo ci la bokk muy xeeti saf safa li nga xam dañ koy lekk nga xam ni téeméeri góor yoo jël rek 99 yëpp day daanaka doonoo taw tawalee seen problème xam ni kenn nga cee mën a tànn daa nekk ku nit ku dëgër dëgg dëgg dëgër waaye yow mbokk mi nga xam ni loolu dalaa dal da ngay jëfandikoo lii may bëgg a wax waaye laata loolu ñuy yëgal mbokk yi nga xam ne yor lu mel ni place wala société moo xam commerçant nga moo xam tailleur nga moo xam sëriñ nga sax buy ñaan am nañ fi secret mbooloo bu doy waar boo xam ne képp ku ko def te amoo kaaraange dana day waar lool sa côté sekkara mbooloo bu doy waar yu kéemaane kéemaane sax ñoo fi ne yu kéemaane lool loolu nag may wax ni baax na ci commerçant yi ak ñi xam ay téer lan wala koo xam da ngaa nekk ci barab boo xam ne danga koy bëgg mbooloo incha allahu rab buñ ko jokkoo buñ ci waxtaanee ba déggoo des na la ko liggéeyal incha allahu rabbi sekkara bu doy waar la mbokk yi li leen indil tey mooy li jëm ci wàllu néew kartan dama bëgg nag ñu teewlu ko bu baax a baax te xam ni nii ñu ko waxee rek noonu lañ koy defee jërul woote daanaka di leerlu nin ko waxee rek noonu las koy defee bàyyiwuñ ci dara comme neen ko gisee faatixatul kitaab mooy alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim ghayril wala daalin amin noonu la loolu may faatixatul kitaab faatixa ngay bind aaya bu nekk juróom-ñaari aaya la bu ma jomul aaya bu nekk nga dugal te lii may bëgg a wax ba binde alhamdulillahi rabbil alamin nga def xawiyu matiinu zul jalaali wal ikraami arrahmaani nga defaat xawiyu matiinu zul jalaali wal ikraam malik yawmi diini xawiyu matiinu zul jalaali wal ikraam aaya bu nekk loolu nga ciy dugal muy xawiyu matiinu zul jalaali wal ikraam noonu koy def ci biir aaya fatiha yi fatiha bi jeex boo paree nga def ko saafara nga wut ñaari xas yi may bëgg a tudd boo demee ci jaaykat yi jaay ay xas ak sa ñoom am nañ ko yow mi may déglu na nga ko teewlu baax te jàpp ko nga wut xasum xoos xasum xoos ak xasum dànq dànq mooy garab gi macc màcc xasum dànq nga boole kook saafara si nga xooj ko ba la neexee saafara si da jël xas moomu nga teg ko sib baxal ko ab diir boo ko defee mu bàyyi bu la neexee bu la xeen neexee tam nga def ko saafara si bàyyi ko ci ba mu yàbbi ci nga di ko jël kaas suba kaas ngoon ak kaas midi maanaam kaas suba mooy guddi booy bëgg a tëdd suba gi boo ndekkee pare ak midi wala waxtu woo lekkee naan kaas incha allahu rabbi képp ku ko jëfandikoo ci ni ma ko waxee ragal naa dégg ma waat sant bu baax a baax a baax incha allahu rabbi xawadu sàkkar bu kéemaane kéemaane la bu am doole la bu am doolee incha allahu rabbi képp koo xam ne mënoo koo liggéey boo na wooye mën na la ko liggéeyal incha allah fo nekk ñu libéré la ko kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan suñu borom mu barkeelal lépp lu ngeen fi jëlee te defal leen fanu gudd ànd ko wér ak aajo fa ja barkeb alxuraan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu